ka autonome ngir sukkali jàng bi ak tàggat amal nañu journée nationale ci Bignona boobule bis di magnifier liggéey jàngalekat yi waaye tamit waxtaan ngir jàng bi ak jàngale bi mën a jëm ci kanam. mu nekk bis bu màgg pour suñu organisation syndicale nga xam dañ ko jël jagleel ko jàngalekat yi pour liggéey bu am solo bi nga xamante ne bi moom la jàngalekat yi di def. pour njàng mi ak njàngale mi jëm ci kanam liggéey boobu ñu di ko def également ñu valoriser leen magnifier leen lool moo tax ñu tànn bis bi comme ni ngeen ko xamee nag tam bi ñu jël dañu wax dabaat ci benn paradigme bu bees mooy l'intelligence artificielle lool nag comme que paradigme bu bees la dañ ko war a intégrer dans les enseignements apprentissage intégrer ko dans nos façons de parler intégrer ko dans no façon de vivre loolu moo tax ñu tànn encore thème boobu pour ko fii tey fii ci Bignona si loolu ñoom syndicat yi di woo nguur gi taxaw si situation jàngalekat décisionnaire yi waaye tamit prolonger seen i retraite yóbbantewaale nañ l'autorité le préfet en l'occurrence ci le président de la république nga xam ne dañu am ci moom yaakaar bu rëy loolu moo tax jàngalekat yi situation bi nga xam ne moom la ñuy dund surtout jàngalekatu décisionnaire yi situation boobu jóge fi nga xam ne jàngalekatu décisionnaire yi seen situation réglé wu loolu la ñuy wax le président Diomaye Faye mu réglé ko ensuite wax également que jàngalekat dañuy constaté jàngalekat yi à 60 ans nañu jël jàngalekat yooyu war a retraité ñu prolonger seen séjour ne serait-ce de cinq années supplémentaires pour que ñu mën a encore jox sem bi ak xam gën ko may doole gën ko may ndëgër laay waa def di woo nguur gi jàppale leen ci seeni initiative bu mel ni création académie de Podor ak extension carte scolaire yi ngir mën a gën a dooleel jàng ak jàngale bi ci réew mi